bismillahi rahmaani rahim képp ku jàng faatiha ba ci iyaaka naabud wa iyaaka nastain nga teg ci innama sanahu kaydu saaxiru wala yuflihu saaxiru xaysu ataa nga def ko juróom-ñaari yoon àggale faatiha ba moo xam da nga bind moo xam da nga koo jàng yàlla dañ la musal ci njabar bu njabar nekkee ci yow dana deñ inna insha allahu taala jàng faatiha ba ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nga jàng xaala Moussa ma jaxtum bihi shaara inna allaha sayubtilahu inna allaha laa yuslihu xamalal mufsidin juróom ñaari yoon àggale faatiha bi julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla dana la dindil jépp gépp njabar te dana la fekk ci gépp njabar insha allahu taala moo xam danga ko bind moo xam danga ko jàng soo ko bindee nga sangoo ko ñetti yoon su fekkee da nga koy jàng suba gu nekk moom jabar moom tëng ci insha allahu taala ci kàttanu sunu borom. ginnaaw bi nga seetaane vidéo ba pare fekkee abonné ko na nga abonné te bës tuus cloche bi ndax bu ñu dugalee vidéo nga mën di jot notification yi.